jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne ñoo ngi leen di baalu àq te di leen baalu àq euh, koo gi ba léegi nag gisanteeguñu waaye ñoo ngi leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax ne ramadan baax ndax xam naa ne koo moom fi mu toll nii kalaasu Baye Jili gi ak kalaas suñ bas yeeg kàggu yeeg aadama gi xam naa ne koo gi da leen xaw a jàpp ak mbenn waaye maa ngi nuyu suñ kilifa bu baax a baax Père maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la jaajëfal bu baax a baax di la wax xam naa nag yow moom comme ko njaay sant koo gi fi mu toll dina métti yow gëj naa laa dégg trop waaye maa ngi la jox sa sa sa wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii ci pikin seet si fi nga xam ki nga xamante nii nii mooy Ibou Senghor Ibou Senghor mbokk yi dafa nekk ndaanaan boo xamante dafa bokk ci làmb ndax su ma nee Ibou Senghor ne def na lu bëri ci làmb euh, ku def ko ku def onze combats dix victoires benn defet defe naa ne ndaanaan nga ci wàllu làmb te am na foo xamante ne woo nga faa yegg mais man des fois daf may jaaxal su ma gisee yéen ndaanaan yi duñ leen leen teg seen place wala boog du ma leen dégg fenn fii daf may xaw a jaaxal waaye balaa ma ci sori wala balaa ma ci xuus dama koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan wi xëy na peut-être moom dina mën a développer bay mais Ibou nuyu naa la. jàmbaar maa ngi lay fay Ousseyn di la sant bu baax ci déplacement bi nga def xam nga jógee di parcelle bu Pikine maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant sama ñaari waajur xam nga di sant sa camarade maa ngi koy nuyu bu baax fi nga ma fekk nii nag sama place bu grand la Modou Mbeng kee sama mag la sëg naanaan suñu papa ñoo defalante fii laay ferekante chaque jour ñu doon samay garaay bu baax bilaay ma leen takkal ay pot chaque jour di leen sonal xam nga di nuyu kon bi ma dëkk xam nga di nuyu gars yi yëpp di nuyu waa sama écrit di nuyu waa Seras rawatina fépp son ci club Ibou Senghor nekk maa ngi lay siyaare di nuyu aussi sama groupe fan ci club bi vraiment maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di la nuyu bu baax a baax nag ci kontaan nag ñëw bi nga ñëw fi seet si ma quoi vraiment di baalu ñëpp ak nag ci koor gi di la ñaan yàlla yàlla na rek yàlla na ko yàlla suñu borom nangu dégg nga Badama kontaan naa bu baax a baax ci déplacement bi. mais fi nga dëkk di goxu làmb su ma nee pikin ne Ama Baldé su ma nee pikin ne Boy Niang su ma nee Pikine ne Eumeu Sène nga ñëw nekk euh, goxu làmb naka ngay dundee ak ñoom ñi nga xamante ne ay mbër lañ nekk fii bi Pikine. non gars yi nag jàmm rek la ñuy saxoo surtout ma Ama sama gars la vraiment ay combat yu bari man dama ciy jàpp ñuy bokk entraînement di bokk ay contact affaire yooyu noonu mu doon nit ku baax itam xam nga vraiment ku ma fonk ko ma jàpp ko mu jàpp ma tey la rek a tax vraiment man ma nekk sama gëm sama bopp topp ma ci topp ma ci kenn xam nga du ma supporter Mbor nekk sama ruux xam nga di liggéey bu egg si fa ma egg si vraiment maa ngi sant samay waa écrit ñëpp nag di leen gërëm di leen sant yoo xam ne Mboru Pikine amoo ci kenn xaar ma am yal na leen yàlla may ndam ñoom ñëpp vraiment kontaan naa ci ñoom ñoom ñëpp naan ay borom baax lañ quoi waaye. mais ma faat balaa balaa balaa ba ñëw sax ci làmb mbër ak koor parce que mbër yi bëgg nañu lekk mbër yi bëgg nañu nalaw mais naka ak koor gi nii naka ngeen di dundee entraînement yi da ngeen naan ne matinalu mais fi mu nii naka ngeen nar a dundee ak gi. non man moom instant yii benn siège rek laay def ngoon laay dem falaay leen góor du door du dóor du dóor du dóor li ma war a def yëpp daal li ma koy def si ngoon maa bi daal vraiment mais tere moom may damay woor moom vraiment depuis 2013 ba léegi man damay woor waaw def naa ci at at yoo xamante ne benn fan sax du ko tax de sax xam ko waaw koor moom du ma yàqal dara moom vraiment. Ah, ni ngeen bëggee lekk. ko gi ñëw <laughs> ngeen wax xëy suba fu ngoon toog jot du ngeen lekk lool loolu dina dina métti yéen de. day métti mais nag nga muñ rek doo xam ne weer bi moom nee nañ yoru promotion la. xam nga gaaw ji profité wu rek jaamu ci yàlla xam nga rek xam nga jaamu yàlla xam nga rek wóor wóor yà wóor yàggul quoi. xam nga est ce que nekkul est li ngeen di taamu bëgg lekk moo tax mbëri xaaj bi yëpp 3 heures wala 5 heures la ñuy yeewu xam naa métit bi la ñuy bañ a kii moo tax ñuy tëdd di ko. profité li nga war a yëpp yëpp xet bi nga xet lu rëy. waaw <laughs> li nga war a dégg yëpp <laughs> li nga war a nga lekk ko. waaw loolu laa koy xëy di ndekkee deux kilos. nga xëy bañ a ndekki doo añ waa xaa ngoon est ce moo tax nalaw yi di gën a bari. yow dama lay invité séerage na jour nga fekkee foofu suñu ko yàlla ah. foofu lañ déggee chaque jour mu jógee entraînement ay borom baax lañ quoi vraiment dañuy dagal yàpp chaque jour waxuma la chaque jour saa bu jógee entraînement séerage ñuy waa gis nga xam mbër

na ko sante jaamu yàlla yi billaahi lu mu am ci àddina yàlla ak nit ñoo ko ko may billaahi mais léegi su ngeen xëyee suba ndekkiwu leen añu leen boole koog nalaw gi met boo demee ba ngoon naka naka naka la Ibou Senghor wa ndogoo <laughs> man moom tey tax damaa deelee ay trois heures ay cinq heures yooyu su ma ñëwee huit ba ay cinq heures ma dem entraînement école ba fa nekk ba ay dix huit heures demi ma ñu mu wàccee moom xam naa ne moom déet waxuma loolu de waxuma ay entraînement yooyu de ma ne boo gannaaw boo xëyee ndekkiwoo ah. ba ngoon jot naka nga war a bi moom day dar moom xam naa ne mbir bi moom. Ah. damay ndogu ndogu ba reer bi day ñëw sax du ma mën a reer. ah non kilo mbuuru rek ak lu mu war a àndal quoi. ñebe wala lan. ñebe fan ay nenu baxal boo ci defee quatre nenu baxal daal dew ci ñebe ah def ci may ne door nenu baxal wala cinq yooyu. nga door ko naan quatre nenu baxal nga koy lekk. waaw wala cinq yooyu des fois ci ay six nenu ay six nenu baxal yooyu. diw ci ndembe xam nga def ci sew yooyu noonu ak taasi café xam nga am yi rek sama jabaru mag bi kooku moom xam nga ne Baye Fall la maa ngi koy nuyu sax au waaw ah, cinq nen bàyyi na de. cinq nen des fois sax six ndax démb defe naa six laa doore de. six nen moom laa doore ak kilo mbuuru maa ma xam. reer bi ñëw nga waa bi ñëw après may xaar ba ay vingt trois heures wala ay mini yooyu rek man kese maay bokk reer. waaw man kese may tibal dugal ma ci rëg raaj ubbeeku saana fee tànka saana fii tànka tiim bool bi dóor bu fi ne kànk nga jóg <laughs> gannaaw léegi bu ñëwee ci lool mais Ibou Senghor nga def onze combats def dix victoires mais ba léegi Ibou Senghor dafa mel ni gars dañu la fàtte waaw gis nga xëy na rek comme li ma faral di wax gars yi rek mbëru séeréer moo miti may bi ah, man su ma doon keneen tey jamono yi bi ne kenn dootu ma gis ci mbapat di naan man damay bëri ci mbapat onze combats laa bi may bëri mbapat ah, arène ba léegi benn yoon laa dégg ne mu ñal depuis 2012 ba léegi laa sama ginnaaw laal gi jalaal suuf ci arène bu def os combat ak kàngam yi ma daan ak ñoo xamante dañoo ñëkkoon ci dynamique bu baax ñekk dynamique bu baax ji daan ñoom ñëpp ma ferene leen di daan di daan ba yëg si ma yëg si gars yi waroon nañ maa nga doon gëstu jàppale mu baax baax kenn du ñan ak ñan nga daan limal ma leen ma ne pour ma lim ñëpp nag dina xaw de mais leer na ma ne leen man daal naa Malang Ndiaye daal naa Ndoof daan Mansour Diop numéro 2 daan Ibou Ndapa numéro 2 daan Ndoof daan Boy Naar bu yaraax a ah, daan eh, Khadim Diallo daan eh, kii nekk Fass eh, nuñ ko Babacar Diallo Fass ah na de na de ñeneen ñu xamante ne maa ngi leen di fàtte parce que man onze combats laa daan ñooñu ñëpp maaleen daan daan Ndiol Ngor defe naa léegi sax mu ngi États-Unis daan Ndiol Ngor bu yof waaw daan ko a ah. ñooñu daal laa jàpp. mais daal kan moo la ci daan. King Kong bu Fass moo a daan. waaw King Kong bu Fass moo ma daan depuis 2012 ah. 2012 ci la ma daan te boobu jamono xel na dugg arène xam nga am 4 combats 4 victoires 2012 ma ñëw gagné benn combat maag moom ñu tegal ñu boobu sax du woon sama parce que jamono boobu moo ma gën a féetee maag ëpp ma doole ñu yu bëri sax may xaaru combat bi xam nga rek journée si foog may xaaru combat bi di bëri di bëri xam nga bu mu jaay ma xel mag jaan ma waaw mais nag naan la daanak daanu ñoo ànd mais depuis boobu ba léegi yàlla mooy dima dima sutural may am combat yu baax di daan te vraiment di ci am ay ndam vraiment onze combat ma am ko bu léegi tey jii depuis defe naa 2019 xam nga 2018 laa gi jabore arène ba léegi aw ma combat. 2019 2019 defe naa daal ci laa gi jabore ba léegi léegi ma am deux ans yoo xamante ne bëriwuma ndax parce que daaw bëriwuma ren bëriwuma bu mu ngi nii xam ne miti na trop làmb doon. mais mais mais mais loolu lan la. adversaire yi ñu lay proposé nga dul bëgg wala boog taamu bi moo bëri wala boog da nga da nga yow da nga déggul dara. non des fois ñu wax ma combat yi mais combat yi lañ wax parce que ren eh, ñoom jàmm yi kay ñu ngi ma doon wax sama combat ak Boy Faye mais xam nga ne loolu booy xool jaaduwul booy fay ay naataango la ñu dañooy daanante ci mbabat bi daan na ma fi man daan naa fi ci mbabat bi mais ku dajale onze combats dix victoire booy fay defe naa huit combats lañ wax moom la am six six six victoire deux défaites loolu ute na xam nga ne loolu saful xorom saful suukar parce que ñun ñooy nekk ci mbabat chaque jour boo ko defee ah dañooy naan loolu ñaari mbaru mbabat lañ yaa ngi dégg am combat yoo xamante ne boole ci palmarès am ak palmarès am ci dara Boy Faye mënuma ko damay wax rek te yàlla rek a tax man mënuma ko ki lay daan papat koy daan xam ne kooku mënuma ko bu xamante ne yéenu na maana yaa ngi dégg am na ñoo xamante ma saag man damaa liggéey ba yëg si si maa war a jàppale tu yàlla rek a tax xam nga làmb ji damaa jàpp ne ko am ndey ko amul ko am ndey ko ma am man noonu laa jàppe quoi mais billahi yalla xam na ne man waroon naa weesu fa ma nekk nii waaw. su ma déggee daal mooy euh, Ibou Sango combat jànk la bëgg Ibou Sango boo xamante ni combat bu métti la bëgg parce que tey euh, booy fay da ngeen di tase du benn du ñaar di daanante. soo sañoon am combat boo xamante ni dañ naan kii tey day rey Ibou Sango wala Ibou Sango da koy rey. voilà très bien Iba loolu laa bëgg parce que man li mu war a def yëpp man def naa ko li mu war mooy échange bi mu am combat boo xam ne day naan day li ma ciy prouvé mbapat lu ne am naa ko ci lu ne jël naa ko ci boy yi nga gis nii yëpp ñu leen di topp sama ginnaaw ñu leen di coow fu mu ne nii sama ginnaaw la ñu folee 2006 2007 bu jamono bii ne boo ko doon ay loolu at yu bari de géew bu ma man mos naa ko jël ay yoon yoon yoon yoon géew bu ma daanu tey mën la jàpp ne jël naa ko ay yoon lu ne jël naa ko ci mbapat lu ne du nag du xaalis lu ne jël naa ko ci mbapat bon booy nekk si sama ginnaaw yëpp yëpp si sama ginnaaw la ñuy fole man du ma seen morom ci dara dara ci boole ji dara dara nga garab nag ci kaw lay fekkante bon mbapat amatuma len la ma ci mooy arène mbapat mënuma ci am lu ma amul mënuma ci fu mu ne nii bu ñu waxantee dégg mënatuma def li ma defut loolu mënatul nekk mënatuma ci am lu ma amul mënatuma def lu ma ci defut yaa ngi dégg fu mu ne nii parce que li ma ci dese xëy na di fortaatu affaire yooyu noonu parce que boo yi mag nañ te noonu la ñu suñu mag yi lañ fi fekk ay ñoom doon yëg yëpp ñoom lañ fekk nekk ñoom bu ñu bàyyi ñu fi ñu nekk morom bu suñu morom yi morom man naa la wax ni may dugalee mbapat génnoon bi yëpp bàyyi nañ gisuma billahi bu dul caaka fay caaka fay de ñun ñoo bërandee raw gadu kooku rek laa jàpp moom mooy sama morom ak gaskel mais ku ci des ñoom ñëpp ñu maa leen mag ci bëri xanaa Mamadi Ndiaye Mamadi Ndiaye rek laa fi fekk mais à part Mamadi Ndiaye ñoom ñëpp ci lamb ñoom ñëpp bon li ci boppam yëpp man def ko bon arène laa dese bon nit ñi dañ maa war a jàppale surtout sama miniature nag lu ci war taxawee moom taxawu nañ bu ñu waxee ne ñooy waxati rek koo xamante ne man ndaw laa nekkoon ci yoon bu baax samay mbokk yëpp njël ma tëg ma ci ay loxam mu taxaw mu bu baax a baax nag di ma lijjanti ay combat yi normal may bëree mais léegi damaa jàpp ne dafa am ne ñoom la gën a boo xamante ne mën na ma ci barke a jàppale man jàppale wu ma jàppale damaa taxaw carrément di wax ne mu ngi may jàppale mais fu mu ne nii billaay walaahi dugala ci loxom nu ma war a dugalee ci man waaw Pape Diagne Seras jàppaleel ki nga xam xamante mooy ubbi sangoon ndax xale bu bàyyee lépp ndax làmb da cee war a gis boppam waaye bàyyi lépp ndax làmb après muy sooxee rafetul daal xale la ay xale nga yor te am nañ yaakaar ci yow ñu lay ñaan rek nga jàppaat ci bu baax a baax a baax a baax mais tey su su su loolu lépp jàllee tey su ma nee Ibou Senghor ñan ñooy adversaire am nga limal ma ñett wala ba ñeent rek ñan nga may limal. waaw mooy comme li ma la wax léegi rek xam nga làmb ji léegi moom dafa miti xam nga booy wax ci man damaa laaj laaj gars yi laaj laaj ba sonn man daal promoteur bu seet ak ku mu mënti den nag bu ma soxla sax yaa may ëpp doole ëpp ma gabari ëpp ma lépp ci àdduna ak ku mu ah, mënti boo nee boo nee ku mu mënti doon ndax propose nañ la ma soñoon tey nga ne ma diw ak diw ak diw ay adversaire seetaan wala ñi nga xamante ni ñoo ngi kal ci Wassare Lamb ñoom tamit mën nañoo wax ne diw ak diw adversaire lañ wala lii jaadu na Bébé Saloum maak moom ay naataangoo la ñu war nañoo mën a bëre dégg naa Bébé Saloum jóge ci franc franc daan ko mu am lu ko metti te te te fajagu ko nga bëgg a dugg ci moom ak ni nga gëjee bëre. non Bébé Saloum ngay laaj ndax ñeme naa jël avance Ibou Senghor loolu ngay ngay wax est que moom ndax ñeme naa jël avance Ibou Senghor. xeex de. non dafay xeex dafay bëre moom daanaan la mais yàlla xam na ne xam naa boo ko foogoon nekk avance a ngi moom du ko jël. gars yi wax ji ñëw pare fii rek. non lan moo tax du jël Ibou Senghor du xeex. dama xam ne du ko jël rek man lépp laa mu ne xoolal combat yi ma bëre gisoo ci kenn ku ma mës a dume billahi gisoo ci kenn Malem Niang dina naan day dóor mu daanu ay affaire nangam nangam ndoof gis nga nangam nangam xam nga man mosoo ci gis kenn ku ma ci duma benn groupe ndax yow est ma ko ñamal parce que Sëriñ Tuubaa Mbàkke ko jël Bébé Saloum ay naataangu lañu ay ñoom Elton gaa yooyu yëpp. de tee nga ma yow tudd Elton. Elton ba gis mu toll. ngandim nit la ponkal la champion la mën na bëre. barke Seexul Xaadim ci joxoon seen avance barke Sëriñ Tuubaa dibiteer lay reere billahi walahi amutuñ ñoom la au palais bi la amul luñ. Ibou su ma la andalee Ibou Ndiaye nag. Ibou Ndiaye sama gaayan la moom it wax de kooku mu ñu bëre. Ibou mënu ñoo bëre te Ibou defe naa sax xaw ma ñaata combat la ma deux combat xaw ma ñaata combat Ibou mënu ñoo bëre sama gaayan la maa ngi sax au palais. Sama bàyyi la bàyyi Ibou Sama bàyyi li ngay def. ma wax léegi booy fay nga ne booy fay six ma wax Ibou Ndiaye nga ne ma deux combat trois. waaw boo xeeb xoolal rek onze combat Ibou sama gaayan la sama booy la sama lépp la barke suñu jubaa dañu xam nga jox ceer la nag mooy dem def maa jox ceer ni ma joxe ceer noonu laa ko joxee ceer mais nag dafa am loo xamante ne tam yéen wul maanaam yow itam nag Ibou xam nga deux combats la am xam nga trois combats mu am onze combats. Baara Ndiaye bu Faas ma. bu Faas kooku bu ñuy dox sama combat ak moom yàgg na lool lool lool lool mu bañ langa yàgg na bu may gën a dégg dynamique yu baax wax nañ ma provoqué na sama combat moom ba sonn mu bañ. parce que man doon naa fi dégg mu ne Cobra combat ak Cobra ñoo ko doon dox mais combat dafa mel ni taxawul yàgg moom combat la. buñ ma ko joxe sax ma jël man état bi daal nee naa la daal koo képp koo xamante ne daal làmb jaadu na

mais dafa mel da nga wàcc pour compétir wala nga wàcc pour parce que dëgg yoon nañ la gis lan moo waraloon loolu. waa gis nga comme ni ma la wax léegi rek ñun lamb lañ am di entraîné matin ak soir doon sama métier te mënoo am combat te li ngay topp xam nga rek nit boo demee boo doon xam nga rek euh, borom kii na loo xamante ne mënta mënoo topp nit ñi di leen ñaan walaay nangam nangam da ngay tax si sa jaww xam nga dem compétir des fois nga am des fois nga ñàkk jafar bi a ni xagul noonu dafa defe naa benn final rek la amagum mais nag sant yàlla bu wér a wér a wér xam nga lu la daan loo xamante ne man mosuma ubbi saison sama ginnaaw laal ci suuf lu dul ma jël wala ma finaalu mosul am ren rek la am ma dem ubbi ci saison jëluma drapeau wala finaalu wu mosul am bi ma duggee ci lamb ba léegi mais nan la léegi lu ay fan. mais loolu mais loolu lan la. loolu lan la nga nga nga nga yàgg a dem làmb di ko jël wala ngay finaalu mais. mën na jël drapeau ba léegi mosuma ubbi ci saison jël mu wala finaalu mosul kenn mosu koo teg ba. waaw day defal ndànk man dafa am ay nopp yu ma am te dama koy déggee. loolu lan la. comme maanaam. xam nga ko. non non loolu moom moo <laughs> mbir yàlla la rek. bon du ma demee waaw comme mbir yàlla la rek comme tey su ma demee. man dama la gëjoon gis. a ah, déggoo naa fan yee passé Ibou Senghor dafa xawoon na tawat affaire yi demee noonu mais nga ñëw. booy dañ jàpp dina daan jël yoo xamante ni nit ñi. xawoon naa ci biiru nag. mais nag sant yàlla bu wér man nag maa ngi sama jaam wér na xam nga loolu rek bi loolu tey rek ma kuroo pendant sama entraînement mais loolu amul benn problème garab ci kaw lay fekkante booy dañoo mag ñun ñu fak fekk suñuy mag xam nga jëlee leen fi suñu morom yi ñëw ñu jëlee leen fi ba suñu raakaat raakaat ñëw fekk ñu fi ci mbabat bi yaa ngi dégg bu suñu raakaat raakaat ñëw ñu fekk ci mbabat bi buñ ñu daanee dañ xel nangu nañ ko booy mag nañ garab ci kaw lay fekkante boori xelee koy def du dégg surtout ma mbapat mbapat dafa miti nee naa la 2007 2006 2007 ba léegi boo ko doon compter ñaata at lay def lu mu bon bon def na 15 ans xale bu jigéen sax juddu na di dem sayi bon mbapat amatul leen lu ma ci dese mbapat fu mu ne li lu ma sama bénéfice la suñu génération bi laa la wax de bu dul Mamadi Ndiaye ak Pakala ñoom rek laa fekk fii ci làmb mbapat fii ñoom rek laa ciy fekk ana Mamadi tey Mamadi moo noonu woon seetaan samedi dimanche amul drapeau ñaata làmb la seetaan to gañewut amoon na fi ay jamono yoo xamante ne Mamadi mënul seetaan samedi dimanche amul drapeau moo tax yàlla rek yàlla mooy def rek lu ay fan may ay fan dañ ko nangu booy ñoo nekk si seen bidéw noonu la dañ leen koy nangul parce que suñu mag yi noonu lañ ko nangul la ñooñu dañ leen koy nangul mais taxu ñag ñu bàyyi leen ko ak moom lépp li ma ci mën maa bopp te li may def gëm naa ko te aussi bëgg naa ko te entraînement du ko boole ak dara dégg bon noonu la booy bu ñu daan itam dañu koy nangul la yoo xam ne loolu lamba mel noonu amul benn problème lamb lu ne am naa ko lu ne benn saison dama ci am lu ay vingt rampo barke alxuraanu karim allo bi amoon na ay jamono teg bu baax bu ñu fa teg maa koy buub chaque semaine ay gét laa doon wàcce ay trois nag ay quatre nag ay cinq nag chaque semaine chaque semaine bu jët boo ñëwoon suñu kër boo suñu buntu boo fekkee nag yi toog da ngay naan ni nit lii nit ko ci làmb billaahi walaay ñu ngi may dégg buñ heure yi buñ. mais mais loolu loolu loolu loolu ba ba ba nax saayul rek. non non sant yàlla bu beer sant yàlla bu beer tey gi lamb lu ma defal maa ngi si sant yàlla bu baax ci laa amee gët ci laa defaree lépp suñu suma gàlle xam nga daal lu may defal bu ma toogoon fii di la ko wax dañuy naan kii dafa bari wax mais jarul. parce que nit am na ci li ma amut mais man itam am naa ci li nit amut bon jarul ma toog fii dinaan daal leer na ma leen ne lépp lu sama war rek merewuma ko ci dara ci dara nag ci dara lamb am naa ci lu ne billaahi ay wataala am naa ci lu ne surtout mbapat nag mbapat lu ne am naa ko ci façon drapeau mu ne jël naa ko du ay million du ay gétti nag du leneen am naa ko ci mbapat léegi soo amoon kàddu yu mujj lan ngay wax ñi nga xamante ne ñoo lay jàppale muy ci wàllum promoteur yi ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw ak fans club bi lan nga leen di wax eh, Ousseyn naa la wax leen nag ren jàppale bi mu am ren bu ma duggee ci làmb bu léegi mosuma ko am rawatina surtout sama fan si club bi aw ma seen fay barke Serigne Touba Mbacke mën naa la wax ne kenn ci di nuyu waa Jofaan rawatina sama fan ci club bi lu ne dañ koo daj ci man leen maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ñoo xam lu ñu bëgg ci àdduna yàlla na leen ko yàlla defal di sant sama benn paa bu nekk Kaolack père Amdi Fall kooku itam aw ma fayam yàlla mu am fayam yàlla na ko yàlla fay di sant sama gars yi nekk Seras xam nga ñoom Dieng Dieng ñoom Ngambi Kamba xam nga gars yi ne foofu rek ci mbaar ba yëpp daal bàyyi ma ci kenn di nuyu itam aussi sama benn rak ñàkkar sek xam nga booy booy ma ànda ci lamb ak ñoom Ousmane xam nga sama grand yi ma dëkkee fii Pape Ndour itam grand bu baax la moom dama jàppale ci lu bari maa ngi ko sant bu baax di ko gërëm xam nga di sant képp koo xamante da ngay bëggee Ibou Senghor di ma jàppale maa ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant sama grand yi nga xamante fii nga ma fekk ñoom Modou Mbeng ñoom Seck Ndaanaan xam nga maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm vraiment itam di la sant yow itam di la gërëm xam nga di nuyu sama mbokku mbër yi yëpp xam nga di wax sama ménagère na gën a gëstu ci mbir yi nit ki amul dara koo xam ne say mbok ay mbokkam dañ koo jël yebal ko ci yow ne ko mu ngi ni bu baaxee yow la su bonee yow la kooku da nga ciy war a def kéem tolluwaay ay kattanam Pape amul mbër bu mu mun amul ku ku jàppale kenn yi tam amul benn mbër bu mu mun amul def maa war a jàppale te yàlla rek a tax def naa samay prof yëpp nag ak côté ba mu mënti ne nee naa ko mbapat desetu ma ci dara fu ma desee fu mu ne nii mooy fii si arène arène bi laa a fii si fu mu nii mbapat gi mbapat di maa ñàkk pexe rek di ciy wàcc mais bu ma saanoon gis ngeen euh, waaye fàtte naa balaa ngaa ki lay wax nga baal sama mbëri ndax xam naa ne euh, mbapat yi moom di ngeen ci waxante des fois ngeen defan ci baal leen àq ñu ñu ñu tàgg waa gars yi xam nga lamb moo ñuy boole maa leen di baalu ñoom ñëpp xam nañ man Ibou Senghor ñoom xam nañ sama xol dara nekku ci barke Serigne Touba Mbacké ñoom ñoom xam nañ ko ci déggoon tey mi ko nekk Ibou Senghor da laa naan i kooku nangam nangam amalu kañ àq man su ma duggee ci biir lamb ji maa ngi ci biir ku may daan ak ki may daan yëpp a ci man nag ñi ma jël ak ñi ñoom ñoo ci yem amalu ma ci kenn comme amul ku ko ma ciy noonu amul ku ma ko xamante ne amalaa la xaar mu ak yow ñoom ñëpp nag maa leen di nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm xam nga wéeru la ñu jaamu ci yàlla di ñaanal xama sama waajur yaay di ñaanal samay mbokk xama di ñaanal sama bopp yàlla na ko yàlla xaar àjjana wax leen di baalu ak ñoom ñëpp man itam baal naa leen ñoom ñoom na baal quoi booy maa ngi leen di sant bu baax di nuyu nag sama booy nag agri ba ñoom ngóor bi ñoom booy maron booy yëpp maa waa agri ba yëpp ñoom ko samay coach ñoom Gana ñoom Ousmane Fall gars yëpp maa ngi leen ñoom Ousmane Ndiaye aussi ñoom la maa ngi di sant li leen gërëm booy gis ngeen ni leen koy defee ci Wassare Lamb euh, ñoo ngi ci koor waaye du ñu toog benn yoon fépp fu làmb nekk wala foog foo xamante ni mbër dana fa nekk di waaj ndogu dinañ ko fa fekk di leen ko dégtal di leen jaajëfal bu baax a baax di jox dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb Adama jaajëf.